président moo liggéey pont waay. pont émergence moo liggéey. ndeysaan. moo liggéey aéroport ba ci moo liggéey dem naadu. waaw waaw. Dakar Dem Dikk yi ba fi ak góor gi ba léegi. Eh. Sénégal Dem Dikk amul. tey nag bu ñëw kat Sénégal kon Macky Sall yal na ko yàlla may deuxième mandat. amiin. ci barke Sidina Mohamed. amiin ci barke Birédi. amiin yal na ko yàlla may. amiin jërëjëf waa jërëjëf waa jërëjëf.